mbégte kontante ñi di leen dalal beneen yoon ci seen programme yi Sahel Network TV muy bàyyi ko fii ci bànjul di wax ne rek yéen a ngi fas yéene ànd ak seen yóbbali bés bi comme ni ma ko daan defee rek ak ñi ma ko seqal suma ñaari malaaka yu ndaw yi euh, bu gàtt bu xees bi macha allah ak bu selem bu bu ñuul bi Banjawaali Mbay la euh, mbokk yi. Euh, di leen fàttali rek ne leen di leen a subscribe ah di leen a subscribe bu baax a baax di leen a bës bi tam boobu noonu anti ada euh, dafa mel ni fan yi dafa am lu lu xaw a kii de moom na ko tubaab di waxee. waaw ah, Workers Day. Ah. loo ñu indil ci Workers Day. <laughs> Ah, Workers Day ak coronavirus bi. <laughs> mel na ni. Mhm. ayca. <laughs> Well, this year May Day celebration is very different from all others because of the challenge with coronavirus mm -hmm. and need to be stay at home. There will be no workers' game or any other outdoor celebration. Mm -hmm. Although the government have provided food support, the chairman of the Gambia Trade Union, Masani Sise, has called the government to improve workers' salary. Mm -hmm. Apart from that, the government really needs to improve the condition of workers and their families. Mm, <laughs> ñu maase ko am na solo. waaw asalaamaaleykum yéen mii di seetaan Sahel Network TV Aïcha teewalaat na leen si biir kër bi. Mhm. yóbbalu bés bi lañ wax waaye Ada tey moom li nga nekk na lu am solo soo ko seetee. Mhm. waaye Workers Day daaw ak ren du benn. Mhm. man sa nuyu ma mbokk yi asalaamaaleykum. xëy na am naa nuyu. non garaaw garaaw non garaaw garaaw koor gi la rek. koor gi la bul wëri. ma dellu si waat rek eh, loo loo andi tey nekk na lu am solo parce que soo ko seetee workers day dafa nekkoon bés boo xamante ne international labour day lañ wax képp koo xamante ne liggéeykat la sax daf si dee kontaan parce que dañ dee génn di dem am fond surtout si independence day <laughs> oh. mhm. iya, yomb eh, ah, bi danga man bu ma dee neex mooy fu ñu dee xëccante buum nga gis yéen daanu ba ba ba ba mu nga loolu yëpp soo ko seetee dis amut parce que ah mbas bii de moom yàq na soxla yu bari coronavirus waaye wakas dee lu man damay ànd ak ma sànni si sa wax nee na yokk salaire yi na koppar waaye salaire ak allowance du benn soppi na bi wax ci booba waaw man eh, li nga wax dëgg la dëgg la dañu war a salaire yi loolu rafet na waaye damay wax ni am na loo xam ne moom moo covid 19 bi te loolu maanaam eh, liggéeykat baa nga koy dund jamono ju nekk jàngoro boo xam ne moo gën coronavirus bi gis nga man pour wakkas di ak coronavirus ni ñu toogee si kër yi sax baax na parce dina tax maanaam euh, noppale gi ñuy wax yow liggéeykat gi di nga mën a noppale li tax ma ne nag jàngoro bi gën a bon covid coronavirus bii. ay soo ma mooy bi si arène. non man mooy ban gaynde bi si arène. xiif. non man waxuma xiif. yow non non man waxuma xiif xam nga xam nga liggéey ni métti. Mm-hmm. virus bi a bon moom mooy ngay ngay liggéey ñu di la xoqatal. wala ngay liggéey di mer. jërëjëf non non loolu mooy mooy virus bi gën a bon. parce que benn yow li nga war a liggéey doo ko liggéey. ci ni nga ko war a liggéeyee. te gis nga liggéey boo ko war a liggéey dafa war a ànd nga fiix. ak mbégte dégg nga gis nga fiixte boobale ak mbégte boobu mooy tax li nga war a def nga def ba romba sax li nga war a toon a def waaw nga ba su boobaa kala jël liggéey dina xam ne dëgg dëgg dëgg day su ma kii kii jar na jël bu loolu moom moo gën a yéeme. so motax man man man jamono yu nek su su su meedee joté man ci bor bobu la dé waxé dem fay stadium eh, dem daw yi dem li baxna way nit ki dafa war di train every day mhm. understand nga bul xaar ba benn yoon si at bi rek mhm. nga ne da ngaa dem daw yi da ngaa dem gettu gere da ngaa dem parce que every day yaa ngay lekk yow ganaar nga faa lekk drink nga faa naan woñño nga faa naan yaa ngi ko defar sa kër waaye jàngoro bi gën bon mhm. coronavirus man mom laay wax ne nit ñi jàngoro bi gën bon coronavirus mooy ngay ngay métital di naxaral sa liggéeykat. Mhm. loolu sax euh, comme na ko waxee media sport bi sax dafay andi comme united. te ñu ne united we are divided we fall waaye soppe na bi lu wax tamit aada loolu soo ko seetee lu déggu la parce que ngay liggéey even ñun mi nga xamante ne everyday ñu ngi toog si kanam bi caméra bi. caméra lu sa kanam nu munti mel loolu lay wane. loolu lay wane. doo doo. non dafa feeñ dafa feeñ sax si bu dee kayit la dafa feeñ si kayit. kontante kontante bi mooy bu dee kayit la dafa feeñ si kayit bu dee computer la dina feeñ si computer bi ak ci lu mënti doon dina feeñ pour su man pour man euh, coronavirus bi dëgg la sonal na ñu dëgg la xëy na média bi ñu daan am foon te ñeneen ñu bëri sax xëy na soo gisee mu naxari leen mooy ña dem di dajeeg seen jànq yeeg ña daan dem di seen dégg nga jëkkëri jàmbur yi daan dajee yeeg jabari jàmbur yeeg jabari jàmbur yi daan dajee yeeg jëkkëri jàmbur yi <laughs> moo tax xëy na loolu amul ah kay moo tax ñu bëri sa xëy na mu xawal yi waaye ah, man daal noonu laa ko gisee man Euh, comme ni ngeen ko waxee doon na lu ama am solo. Euh, parce que doo jógee sa kër ak kontaante nga ñëw liggéey sa xol di naxari. wala nga war a ñibbi ak mer ah, waaw daal si liggéeykaay yi ba tey si ñoom la ñoo dellu di leen wax ne nañ bàyyi xel seen liggéeykat yi. because liggéeykat boo gis doonut si liif ku nekk am na nooy waxee ak moom. Mm-hmm. am na noo war a liggéey ak moom. waxtu liggéey su ñëwee liggéey leen. Mm-hmm. te nit koo xamante ne bàyyi na yitteem soxlaam famille am ñoo toog pour liggéey ak yow. Mm-hmm. kooku fooguma ne war nga koo naxaral. because dëgg la ñoom dañoo jàpp kii mu ñoo liggéeyal dama koo fay suma xaalis mhm. ni minute ne tamit num laa liggéeyal euh, dafa dafa dafa war a nekk sa jaam mhm. wala dañu gis ñeneen ni sax ñu nekk si liggéeykaay yi ñu di leen def looloo xam ne ah, mhm. mu doon naka su dul noonu duñ ko dee nga war a ñibbi sa xol di naxari ñeneen ni naxar boobu daf dee tax suñ eggee sax ko dee boo xëppas seen kaw ah, loolu dañ war a gëstuwaat liggéeykat yi ñu seet leen bu baax ñu dimbale leen xam luy seen métti ci xol man mee dee man noonu laa ko gisee sa liggéeykat yi seetal toog leen mais di na ñëpp toog. dañ a ku nekk lu nekk si xolam mu neex ko mu naxari ko génne ko. ko wax ah, waaye nit di la liggéeyal tam xolam di si naxari du dee am lu ko ne du am salaamaaleykum nga xeebee na suba rek ne ko daaxanaa la. est-ce que loolu daal daan doole a ko tax man daal man daal man daal man daal coronavirus gii. Mm-hmm. man loolu beneen mbir la waaye su ñëwee ci médee. Mm-hmm. li gën a bon coronavirus mooy li ma wax. waaw soo ko seetee nekk waaye nag loolu nag moo fi war a jeex mm-hmm. mbokk yi daal euh, loolu mooy woon waxtaan yi yóbbalu bés bi tey mm-hmm. euh, concerning May Day ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax it doesn't mean uh, like uh, like when they say May everybody should go out there and be chilling and be dancing and be singing or uh, you know doing some sport mm-hmm. activities because yeah. we do sport activities every blessed day I eat in my home I eat chicken I eat green green fish or green, green fish or <laughs> green chicken come on man so xam nga <laughs> For me, for me, the most worstest uh, uh, uh, uh, uh disease is not coronavirus for me mm -hmm. in, in, in, in, in, in, in, in, connection with this uh, Mayday issue. Mm -hmm. My main problem is, and the most dangerous uh, virus is coming to work without having a, a, a fair ad atmosphere yeah. to deliver what you're supposed to deliver. And a Come conducive on. environment exactly. as well. And then you just know? to hop in there, uh, tamid not consider nit kos ñeneen ni dañoo liggéey ngay joggé ba biir kaama weer dee duñ la fay dara lu du thousand five. non kak luñ ci wara wa dafa bari de. Mm-hmm. yeen borom liggéeykat kat yeen lay waxal na ngeen góorgóorlu bu baaxa baax ya yeen borom liggéeykat kat yeen lay waxal yeen yeen ñi mom seen liggéey na ngeen góorgóorlu ba ñëlé na a liggéeyal am xol bu fiix mm-hmm. lolu dafa tax liggéey gi dafa dem kanam dafa tax liggéey gi dafa smooth dafa tax liggéey gi dafa neex man lolu la am pour yegal leen workers should not be angry thank you very much ñun la ñun la won ñun laati te ñun lay doon thank you Thank you.